asalaamaaleykum wa rahmatullah jëwriñ maa ngi lay ziar bu baax a baax a baax a baax maa ngi leen ziaraat bu baax affaire yi rafet na trop kontaanaat naa kontaanaat naa bu wér a wér a wér a wér dama voyagé woon diggante barki démb ak démb yooyu noonu tey laay dugaat sama kër moo tax amu woon jot nii nii nii pour euh, xool seen affaire yi maa ngi koy doog a seetlu nii dégg nii donc seetlu na dégg naa seen waxtaan bu baax a baax a baax dégg naa confession yëpp dégg naa ko mais man dafa am benn affaire boo xamante ne seetlu na ko ci démb <clears throat> maa ngi doog a seetaan film bi nii parce que dama ko seetaan ba pare rek après ma xoolaat gis ngeen dugal seen euh, seen débat bi nii <clears throat> mais am na solo mais gis nga ki ñëw di jox rakki xaalis bi gis nga sawaay dëgg jote jotee nañ ko wax ko ngeen loolu moo bari Sénégal kaa bii nii moo bari Sénégal. ay kilifa ñuy utiliser xale yi nga xamante ni ay innocent lan ngir lan bëgg a jaa seen kaw jàll te ji nga ñu ngi koy def ñëpp ay doomu baadoola rek la doon yàlla na ma yàlla baal si baat boobu noonu parce que dangay gis jigéen soxla liggéey war a am liggéey bëgg liggéey ñëw déposé ay CVM déposé léppam du manqué dara ñu xam ne kii nii lépp lu ñuy wër mi moom si ay document yëpp mot na bal ñu ko jël faaw ñu jaas kawam jàll te ñi ngay def mooy kapo bi capot entreprise bi moo koy def wala mu doon ki nga xamante ni mu sës ci capot bi nga xamante ne nii si moom nga mën a jaar pour dem si capot bi moo lay saa taas jaar sa kaw jàll doog laa mën a mën a lijjanti sa problème mais loolu même bu la ko lijjantilee ba pare sa jàppal ne xaalis boo ci liggéey l'argent sale la bu fekkee ne sa baay moo tax nga koy liggéey wala sa yaay moo tax nga koy liggéey loo si mën a am l'argent sale la xaalis boobu baaxul man pour man pour man. parce que defoo anam bi nga ko amee doonul alam bu neex yàlla suñu borom si anam njaaloo nga ko amee ba am ko kon man loolu la sansal la point deuxièmement mooy gis naa euh, Cheikh takk ndaw si li si wax noonu dëgg la bu ko takkee rek film bi day daa dree day dee day dee carrément carré carré carré carrément barki Serigne Touba day dee carrément troisièmement yu mooy waa ji film euh, vingt saison vingt cinq bi gis naa ko wax ndaw si moom moo rey c'est vrai gis nga moom moo feeñ mais gis nga fii nii ñi fi bëgg a rey seen baay bëri na ñi fi bëgg a rey seen yaay bëri na surtout Sénégal raison pour laquelle man gis naa koo xamante nii xam ko mu xam ma ñu dëkk ñu dëkk fii nii Europe fii nii ba pare bokkaat dëkkaat Sénégal parce que man buur laa dëkk dëkkaat Sénégal bàyyi jabaram Sénégal baayam bi ko jur. moo ëmbal jabar ji baayam bi ko jur moo ëmbal jabar ji ba léegi mi ngi nii gedd ne du ñibbi Sénégal parce que nee na heure bi ñibbee day ray baayam mi ngi nii mi ngi nii ma koy gis carrément ñoo dëkk ma xam ko bu baax ba pare ñu dëkkaat Sénégal dëkk ci Mbuur baayam moo ëmbal jabaram ëmbal jabaram ba xale bi juddu na barki Sëriñ Bamba ba pare mu wëbbatiku ne moom bu demoon Sénégal day ray baayam kon mu toog fii moo ko gën pendant cinq ans mënul fexe ba dem Sénégal xoola loolu noonu que ñooñu ñooñu ñooñu baay yooyu bàyyi lan ma wëlbati ko gis jigéen ñoo xamante ne nii ñi ngi Sénégal ñii ay dinañ jàng ñii dinañ jàng ñii dinañ def seeni mission yoo xamante ni tolloogoon fu nu war a mën a amee koom-koom seen papa wala seen yaay ne la yaa yor kër gi yaa war a fay courant yaa war a fay ndox si ku liggéeyu nan ngay obligé def di dem jaay sa bopp di joxe sa bopp si àll bi man gis naa gel boo xamante ni nee na benn paa moom moo ko mujj jël def ko comme jabar la ko def te paa bi am na ay jabar wutal ko appartement wutal ko léppam di ko jox xaaj yu wax tal muy dem di yóbbu seen kër dafay courant dafay ndox dafay lépp te ay baayam xam ñu ñu ko jële te ay jamono avant moo ban ko sonalee si loolu ba sonal ko si loolu bu ma saana lekk ñu naan ko dangaa ñàkk jëm say doom say say morom ñooy def lii say moroom ñooy dawal oto yi say moroom ñooy def lii say morom ñooy def lii alors mujj gi ba moom mu ñëg mujj gi ànd ay pas di dund dund boobu noonu di am xaalis di indi seen waa kër mais seen waa kër xaalis boobu noonu buñ ko tiimee togg di lekk est-ce que seen yaram warul daw alors loolu moo bari Sénégal sax waaye point bii ni ngeen laal point boobu sensible la boo xam te ni luñ war a continuer la di si waxtaan parce que li tax moom mooy Sénégal si boppam wallahi azim yàqu na te dootul baax man maa leen wax lii waaw li ko mën a baaxal rek moom mooy comme seen genre yi lii nii nii nii ngeen di def nii parce que ñu bëri jigéen ñu bëri Sénégal ñi ngi fa di joxe seen bopp di jaay seen bopp kenn waralu ko lu seen parents yi da ngeen a ñàkk jom yéen seen moroom rek ñoo fi tekki seen morom rek moo am yàlla mooy maye fii ji nga fi nit nit dem na ba ba ban jël ko si liggéey ba mu signé contrat ba war a mën a xëy dem liggéey xëy dem wuyu ji nit am na teraanga war a ñëw pour bëgge ko ay mbokkam dem ñibbi wuyu ji donc moo tax lépp lu nit di war a am lépp lu nit di war a sàkku si yàlla si borom ñaana yàlla lii nii mu jiglu te na nga amee amin bu la wala wala wala parce que amin bu ñaaw moom wallahi azim dina dina feeñ fii àdduna alaaxira lay gën a méttee laaxira lay gën a méttee si jaam yi na def seen xel ne yàlla mi la sàkk nit ku ne am nga ñaari biir sa biiru bopp ak sa biiru bàmmeel sa biiru bopp yàlla mi la sàkk moom moo la war loola lam la say defal te allah kulli alin dina la ko def dina la ko si defal sa biiru bàmmeel nag loo fa deful doo ko fa fekk moo tax nit ñi di war a loolu bu baax a baax a baax a baax a baax a baax a baax a baax a baax mais point bii ngeen laal ni point la boo xamante ni point bu sensible la man eh, dama problème yi ni dama see yor loo xamante ni ay tonnes laa si gis ay tonnes yi ton yi tonnes yi tonnes tonnes parce que pendant presque vingt ans damay maa ngi si àll bi jiiroo fu na dugg naa fa si àll bi mbuur laa dëkk fa laa juddoo fa laa yaroo gis naa lu nekk si àll gis naa lu nekk gis naa lu nekk gis naa lu nekk gi nga man dama amul possibilité bi rek di di di débat defaat yi parce que sama di di dugg si débat yu mel nii parce que man sama jot moo may loolu na mais mën naa souligner débat yu bëri yoo xamante ni mara day taal yi maara day taali si àdduna yoo xamante ni ay yu ma teg bët laa gis man am naa benn copine boo xamante ni sama xarit la woon ñoo doon ànd ñoo doon def lépp mais papa moo ko tëddee papa moo ko papa moo ko violé je connais elle je connais ton père je famille bi xam ñëpp papa moo ko violé ñu koy ba ni may waxee ak yow moo tax man leen problème yi nii ñoo bari Sénégal fi ngeen ko teg fala duut leen fa seen baaraam maa leen wax lii bu leen ko bàyyi santaan Baye Fall gërëmaat